aousubillahi min asheytaani mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu ginnaaw sant yàlla julli ci yonentam bu tedd bi dellu siwaat nañ ci sunu jataay bi nu tuddee madinatu ilmi ñu di ko amale fii ci sunu site bi ñuy wax 24actu ñu koy def bis ayu bis ku jot ñu koy ànd ak ginnaaw bu leen nuyoo siyaare leen ndokkee leen ñaanal leen sunu kàddu fekk leen ci jàmm ñoo ngi dellusiwaat ci jataay bi jataay bi tey nag ñu ngi bëgg a waxtaane kenn ci njabootu Serigne Touba gi wala kenn ci nitu lislaam yi nitu diine yi wala kenn ci sëñ daara yi nga xam ne dañ fee nekkoon di jàngale alxuraan ba xëy jóge fi kooku moo di Serigne Souhaïbou Mbacké li tax nag sabab waxtaan wi ak ñu bëgg ko waxtaane mooy bis bi nga xam ne moo di juróomi fan ci weeru koor bis bi nga xam ne ci la gane woon àdduna ñu fas yéene koo màggal ak di ko fàttaliku ci ndigalul sëriñ mun Muntaxa waaye ci kilifteefu ki nga xam ne moo di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Sonhibou ak mboolem njabootu sëriñ Sonhibou jàpp naa ne di waxtaane sëriñ Sonhibou de di wax ne sëriñ Touba mooy waajuram maree ma Jaxate moo di waajuram wu jigéen loolu du ko jar loolu yàpp naa ne tagraal nan ko lu baree baree bari li ma jàpp ne kay moom war nañ koo jëlee ci moom mooy jaamukatu yàlla bu fi nekkoon di jaamu yàlla dund fi dund goo xamante ni gu sell gu teey ba jóge fi dellu ci sunu borom doy na sëkk ci dund gu sell gu teey mooy ci weeru koor la fi gane àdduna ci weeru koor la fi jóge am ñu wax ne 1916 la gane àdduna ci njaareem ñenn ñi wax ne 1918 lu ci mën a am rek li itteel du taarix bi waaye li itteel mooy lim fi def lim def ci taarix bi bi mu fi ñëwee ba lim fi jóge lim fi def loolu moo itteel loolu nag bokk na ci ki nga xam ne sëriñ son yi bu def na ci loo xamante ni jàpp naa ne buñ ko royee ñun ñëpp mën nañ koo fekki fa mu nekk ca wetu kër sëñ Touba ndax moom de amoon na yéene ju xamante ni ju sell sell amoon xol boo xam ne bu leer nañ boo xamante ni jàppoon na ne moom avocat jullit yi moom moo ko war a doon moo war a taxaw di leen layal li tax ma wax ne moo war a taxaw di leen layal moo tax mu bindoon téereem mboobu nga xam ne moo tudd xoratul xay ni ngir def ko ci wolof ngir li ko de mooy mu def ko ngir ñun mu xam fi ñuy teg sunu tànk ndax nit ki ki lay wax ne la bu fekkee da toog ci béréb bi toog sa kalpe wadd fi kalpe ba defoon xaalis bu bari nga toog jóg di dem kalpe bi wadd gisoo ko benn waaye ne la sëñ bi sa kalpe bi de dafa wadd jàpp naa ne boo noppee la nga cay teg mooy jërëjëf nga koy wax jërëjëf sëñ sooy bu nag ñun bakkaar yi ñu yoroon wala ayib yi nekkoon ci ñun ñun la loolu la bëggoon mu ci ñun jàpp naa ne kon lu nu sant waa ji nu wax ne nu suñ xaalis baa ngi wadd jàpp naa ne sëñ sooy bu moo gën ci ñun foofu sant sëñ sooy bu ndax moom daf noo wax ne li nga xam ne mooy ayib ci ñun ñu wafaat mu yëg ne mi ngi ci ñun ñu dindi ko loola tax ne téere bi bi mu ko defee daf noo xëcc wommat nu ngir ñu jëm ci yoonu siraatal mustaqim bokk na ci mbir nag nit li muy génne loolu rek la am sëñ son bi ni mu meloon rek loolu la doon génne moo yéene gi mu yéene woon boppam lu baax loolu la ko yéene woon jullit yi te yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne kenn ci yéen ngëmam du mat lu dul lim bëggal boppam daf ko bëggal ñoñam te sëñ son bi lim bëggaloon boppam nekkoon ci loolu la bëggaloon jullit yépp loola bokk na ci li nga xam ne moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki gën ci yéen mooy ki jàng alxuraan di ko jàngale mu toog di jàngale alxuraan di ko jàngalee fan ci dëkku Serigne Touba bi nga xam ne Serigne Touba dafa bëggoon ku toog di fi jàngale Serigne son yi bu toogoon fi nekkoon fi koo xamante ni jamono yi fi toog di jàngale booba du jàngale dafa neex maanaam toog ci dëkk bi rek xëy toog rek neexut woon <coughs> waxantuma laak nag xëy toog di jàngale alxuraan di jàngal ñoo xamante ni ay xale lan xamuñu dara ka bëgg ñu xam dara. waaye lam yéene woon ci liggéeyal ko sëñ Touba tey leer na nañ ne sëñ sooñ bu tey bu nu xoolee ñi ŋànk dëkk bi wala ñi ŋànk responsabilité yi fi gën a for ci dëkk bi mënoo ci tudd te tuddoo ci ku bàyyi ko kër sëñ sooñ bu li mu bëggoon mooy nit ku nite te loolu daf cee nekkoon di ci liggéey bokkoon koo xamante ni li mu bëggoon mooy nit ku nekk al insaanul kaamil mooy nit koo xamante ni daal foo mën a dem mën a jaxasoog ñëpp sëñ sooñ bu yarut woon nit ngir nga mën a doon ndax nit ñi dafa am ku yar koo xam ne dañ lay yar ngir bëgg nga nekk ab commerçant wala nga nekk homme affaire wala nga nekk ku mën a liggéey waaye sëñ son bi da lay yar ngir nga nekk boro nit ku nekk responsabilité xam nga ku nekk responsabilité mooy lépp li war a nekk ci yow dafa war a nekk lu mat sëñ son bu noonu la doon yare bokkoon koo xamante nii nag yëgoon na ci boppam ne li ko bàyyi ci àdduna mooy ñu jaamu ko jaamu yàlla loolu mu nekkoon ci nekkuwaay boo xamante ni ay guddeem yépp ay naafila la ay bëccëgam koor la ay waxtu waxtoom yépp yërmande moom moo ci feesoon dell la waxtoom yépp ci sëriñ Souhaïbou la ca gënoon fees mooy tàllal loxoom di joxe waaye tàllal loxoom di laaj mësu koo def te yonante sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ki gën ci yéen loxo bi ni tàllal loxo bi tege ci kaw moo gën mu ko doon def ci sutura su am solo nag sutura xam ngeen ne kuy jox ay picc ay picc nga wutal leen mbalka ci sa kër waxtu wu nekk nga ne nañ leen sottil dugub xam nga ne ki doon def loolu di jëflanteeg ay bàyyi ma jëflante wut ak picc yi waaye yàlla lay jëflanteel bokk na ci nag li ñuy xame nit ku am ma ne mooy ci bàyyi ma yonent yi nga xam ne dañ fee jaar yonent yàlla Musaa sàmm na yonent bi sàmm na loolu li ci ikkam bi ci yàlla jublu mooy nit ki bu amul yërmande ci bàyyi ma mënu koo am ci doomu aadama te foofu ci la war a tàggatoo nan la war a mën a def ngir mën a yor aw nit nit koo xam ne mënoo wax mun def dara nga fexe di nekk ak moom ba mu déggal la ni nit gën a mën a déggal loolu doy na sëkk sëñ sooy bu danga daan nekk këram mu ne la demal nga sotti wala demal nga jëlali ma nangam waaye na nga fexe ba picc moomu di lekk wala nangam picc moomu di naan fexeel ba bu naaw koo xamante nii nag dangaa tàggat woon ba mën a jaar picc nga mën a romb picc picc mi du naaw picc mi du def dara loolu li muy wane mooy kii kat segam nit picc la mën a def nii nit la picc la mën a am ci moom yërmande ji est-ce que maa nit ki nga xam ne yàlla moo ko teral moo tax képp ku jaar këram képp ku mu jamonoonteel amoon nga cofeel goo xamante ni cofeel ak diine xam nga am na cofeel yoo xamante ni cofeel la nii waaye du cofeel ak diine waaye sëñ son bu doon ko ëmbaloon cofeel ak diine moo tax sëñ Abdou Khadir daan def waxtu wu nekk mu ñëw ci këram bu ñëwee mu ne li ma fiy wut mooy doomu aadama mënul ñàkk kum waxal te yëg naa ne sëñ son yu amut kum waxal moo tax ma fi def di fi ñëw di wax ak moom mooy doomu aadama ñàkkul kum mën a waxal waaye sëñ son yu dafa jëloon wettaliku mu doon wettalam maanaam wettaliku mu doon wettalam jëloon wettalam yi tamit def ko muy ki wettalam muy yàlla yàlla yàlla mi nga xam ne dara du ko ump moo tax mënul jaaxle ci dara bokkoon ci ñi nga xam ne nag doomi Serigne Touba yi nga xam ne ku nekk xam na ne bi sëriñ biy jógee booba xale la du mag lool waaye ña sëñ Touba yaral boppam ba bi fi jógee mu ne leen jërë ngeen jëf seen bi yar mat na. buñ leen tegee ci wetu kër sëñ son yu bu teg ko ci wetu kër sëñ wetu sëñ yu bu da ngay xam ne yarab sëñ tubaa rek moo mat ña sëñ tubaa yaral boppam ak ñi fi nekk ginnaawam bu nu àggandoo ci àgguwaay ba ñëpp àggandoo loolu mooy wane ne sëñ ay doomam nii la leen bëggoon bëggoon ñu gën ñëpp bëggoon ñu raw ñëpp loolu yàlla def na ko ci ñoom jàpp nañ ne Serigne Son bu bokk na ci ñi nga xam ne li Sëñ tubaa gënoon na bëgg muy jàngale alxuraan ak ci dëkk bi def na ko loolu mbokkam yi ñoo ko seere Serigne Bassirou nee na ko la Sëñ tubaa bëggoon ci ñun yow yaa nga ca kon doy na sëkk genn ceere googu maanaam yaa nga ca rek doy na sëkk mooy nekkut ci lii bàyyi lale doy na sëkk ci ñu wax ne am na kilifa gu ma sa dikk fi ne ko sëñ son bi de sa kër gi nga xam ne moo nekk daari kaamil da nga ko waroon a sañ nekk fi ndax gis nan ne kat mm, taalibe sëñ Tuubaa bu ñëwee danañ dikk ci barabu sëñ Tuubaa bi bu nu siyaaree ba noppi danañ dugg ci kër doomi sëñ Tuubaa yi siyaare waaye boo nekkee fële foofa dafa sori mu ne ko te nga ne ma bàyyi ma ne ñënk fii rek te nga ma fee bàyyi ma ne ñukk xaar fi yàlla waaye loola li lay won ne xaar yàlla ak nekkal yàlla li mu amee solo mujj na lu nit baaxlee te da ngay wër di rang ngir dem toog xaar sëñ Sohibu bu jox ko ko te fële mu toogoon di xaar yàlla la lu nekk fekk na ko fa lu nekk fekk na ko te kër googa euh, am na ko mas fekk sëñ Touba njaareem dikk mu ne ko naka sama kër ga Daaru Raxmaan mu ne ko kër ga ma nga fa mu ne ko sama kër googa de nekk fekk na ma ku nekk fekk na ma fala sëñ daam fala sëñ Matar fa la sëñ sooy bu dale jàng sëñ Mourou Moustapha dale jàng sëñ Fallou fa la dale jàng mu ne ko sama kër googu de lu nekk fekk na ma fa kon loolu li muy tekki mooy képp koo xamante ni sëñ sooy bu dafa tànnoon foo xamante ni bu fa liggéeyalee yàlla yàlla fayal ko boppam directement te noonu la meloon ci li nga xam ne moo di tarbiya nit koo xamante ni ay guddeem ay bëccëg wenn waxtu mu bëgg nga neenal ko amul wenn waxtu. xam ngeen ne jullit léppam léppam amut lu lu lu lu lu kii loo xamante ni dafa war a neen ci moom amul jullit amut lu mu war a neenal jullit léppam ak yiw la léppam yiw la moo tax sëñ son bu ñu ko xamoon boo masaane jaar yor loxoy neen sax bu la gisee ne la wàññeekool wala lan ngay def jaral na ko mu ne la foral melantaan yi nga dugal ko ci biteel bi wala mu ne la demal nga bale kees gële waaye loxoy neen mësu koo dugg bokk na ci ñi nga xam ne donga daara nee naan bu nu masaana dëgg a def dara te xam ne sëñ son yi bu du leen wax dara mooy faaw ñu yor ab cukki wala ñu yor wera ne dañuy bind sëñ son yi xam ne ñu ngi ci dara waaye gis leen nu dox loxoy neen moom mosu ko woon a nangu bokkoon na ci koo xamante ni tamit la nga xam ne mooy aw naqaram la bañ mooy góor gu mu woo nga wuyoo ci kër jigéen ñi loolu moom defar naa ni jàng téeréem yépp xa gis nañ ko te loolu kat du bañee lu sëriñ son bu rek waaye day fekk lu yàlla bañ yonente bañ ko sëñ Tuubaa bañ ko mu bañ ko bañ ko jullit dëgg li muy bañ ak li muy bëgg ci yàlla la koy jële ak yonente bi ak sëñ Tuubaa moo tax sëñ son bu lu mu daan bañ ak lu mu doon bëgg yërmande nag ñi ko xamoon moom ak ñi ko miinoon bëggunu woon a tàggoo kudu sëriñ son yi bëggunu woon a wéet ak sëriñ son yi bëggunu woon i tamit képp ku nu mënoon a am bu nu dikkee ci sëriñ son bu gis nañ ne jàpp gi nga xam ne da koy jàpp ak yërmande ak am kollëre sëriñ son bi daana toog ba bokkoon na ci kóllëreem day julli ba noppi am karne bu muy ubbi ngir di ñaanal ay néew bokkoon na ci kóllëreem daana demal boppam ci armée li di ñaanal bokkoon na ci kóllëreem képp koo xamante ni daana jox xaram tabaski wala jëflante woon nag sa bàyyi dana laaj ñan ñooy ay mbokkam ñan ñooy doomam ñan ñoo la fi bàyyi ba ni mu fiy jóge li mu jënd ci tabaski ak li mu fi daan yóbbu ci kenn xamul na mu toll doonoon koo xamante ni yàlla nañu ko yàlla fayal bis bi nag mi ngi ñëw muy màggal goo xamante ni dañ ko koy amal mu war a doon juróomi fan ci weeru koor wi ah, màggal ga nag lépp waaw lépp lan ca fas yéene nañ ko programme bi sëti Sëriñ Sooy bu ñetteelu fan bi ci la ñuy am conférence bu ñu tuddee Soxna May Kubra ak euh, am na fay tamit la nga xam ne moo di set setal ci alxamis ba la 2 ak ajjuma ba ci Madiana am na yi tamit la cinq li nga xam ne moo di consultation gratuite loolu am na fa faj la te doo fay dara beneen ba ca des am na fa table ronde bu ñuy am kër soxna maam Mareem bi Serigne Sonhibou la la war a doon kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen séntu ci màggal gi yal nañu koo fekkee ci at mi nga xam ne moo di mille 2019 asalaamaaleykum wa rahmatullah murtajan minnatun lana jariun